bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun jërë ngeen jëf mbokk yi yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net amaat mbégte bu baax a baax and bi ngeen ànd ak ñun seen émission safar gi tey ñoo ngi fii ci Nord Foire ci fi nga xam ne moom mooy kafe gi ñu fekk fi ay mbokk Baye Fall waaye fekk fi ay mbokk taalibe yoo xam ne si nii boole nañ lu ñu am ak lu ñu amul yëpp wax dëgg yàlla boole ak liñ leen di jox ak liñ leen joxul yëpp ñu jël ko def ko ci li nga xam si moom mooy safar gi mbokk yi bu ñu nee safar gi safar gi lépp benn la lépp xéewal la waaye lépp lekk ak naan la ñuy woote ñoom waa café gi kon mbokk yi dañuy dugg ci biir ci waañ bi ñu xool quelque nit ñi nga xam si ni wax dëgg yàlla ñoom ñoo nekk ci biir waañ wi waaye tamit xool kenn ki nga xam si ni tamit moom mooy yor organisation waañ bi nii la ñuy ànd ak yéen ma ànd ak suma cadre seex comme ñu ko defee woon fan yii yëpp ci safar gi noonu lañ koy defee seex kon let's go ñu dugg ci biir xool baay faali waaye ñu dugg ci biir xool yaay faal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir wax dëgg yàlla di dund li nga xam ne mooy su biir boo fi duggee seex tàngoor yu fi nekk maara day taali waaye lépp lépp Serigne Bamba jar na ko waaye lépp lépp borom bis bi jar na ko parce que borom bis bi lii la woote kon seex ñu dem. seex gis nga bu sëriñ Bamba wootee nii la murid di def takku ba dëgër waaye tamit euh, bernde bu ñu ko waxee tamit waaye xéewal da cee bokk waaye tamit ndawal da cee bokk ah gis nga comme niñ leen ko joxee woon mbokk yi fan yi yëpp ci weeru safar gi noonu lañ leen koy joxe mbokk yi fii nga xam ne moom mooy Nord ci café gi kon nañu dem jëm jëwriñ bi nga xam ne moom moo nekk ci waañ bi ñu waxtaan ak moom jëwriñ ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen fay ku baax. ñoo ngi lay siyaar. ñu ngi delloo siyaar bu baax. tur bi naka la. Aba Aba laa tudd. Euh, ñu ngi rafetlu seen teewaay bu baax fii ci Yoff di leen sant di leen gërëm aussi ci lu bari ñu xam ne ñun lii lañu am ak bés bi muy safar gi ak màggal gi ñu ngi ciy kontaante bu baax a baax a baax a baax di leen féddaliwaat kóllëre suñu digganteeg télé bi yi nga xam ni muy leeral wax dëgg fa yàlla bu dul dara du événement du dara sax du caaginu dañ ciy dañ ciy am cofeel bu baax ci liggéey bu rafet bi ñu def di leen jaajëfal aussi ci teewaay bi te di ñuy am contentement bu baax a baax a baax. Aba liggéeyu weeru safar bu jotee mais bernde yi. bernde yi tubaarkàlla lépp lu fi nekk rek tubaar tubaarkàlla gis nañu lépp mais Aba lii initiative bi lan la. initiative bi mooy du dara lu dul lu ñu sëñ bi ci ay njabootam. sëñ bi ni mu ñu yaree rek moom lañ moom la ñuy féetale ndax moom lépp lu muy def rek partagé lu ko def bañ na ko ba dafa liggéey woon ne bàyyi leen ma liggéey su ma ñëwee ñu bokk ko kon lépp partagé la dañuy jël suñu ñax suñu doole lépp def ci soxla wuñ ci dara lu du jox ko jaamu yàlla ñu xéwalu ko amul lenn luñ ci soxla du dara lu du partagé ak booloo doon benn loolu rek moo ci boole mooy initiative bi. bii mooy ñaata at ngeen def lu mel nii. bii mooy ñetteeli at nag bii mooy trois ans ñu koy def. bi mooy trois ans yoo xam ne wax dëgg fa yàlla chaque année ñu ngi gis tawfee bu baax a baax a baax li ñu sëñ bi di defal mais ñu ngi am contentement duñ ko sàgganee mukk parce que gis nañ ci wax dëgg fa yàlla njëriñ bi ñu sëriñ bi defal ci lii duñ ci sonn duñ ci taay fuñ ci mënti nekk ci àdduna tamit terewul luñ ci war rek lañ ciy def mais Abba bu ñu xayma boo leen boo boo mënee defal lim xayma ci li ngeen def ci safar ji ci wàllum koppar mën na toll ci ñaata. waaw loolu nag wax dëgg fa yàlla maîtriser wu ko mais li ma ci mooy bari na jëwriñ Moussa moom moo yor wàllum xaalis bi moo yor wàllum koppar mais chaque année rek li ma la mën di xamal mooy luñ ci defoon benn rek dañ koy def fukk waaw mais exactement man maîtriser wu ma ñaata lañ ci def. ci lan ngeen tàmbale. ci nian ah, dañoo jug rek Sonko amuñ ci demi mesure amuñ ci coof ay lii ak laa dañoo jug rek Sonko amuñ ci lim amuñ ci dara parce que premier année bi ñu koy def ñu décision ne dañuy defar lii yam ci lii dañoo jug rek àkki fu kawe sëñ bi jàppale ñu ci lépp sotti. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Aba kon Cheikh dégg nga lu jëwriñ Aba bi nga xam ne moom la wax euh, amuñu amuñu am am na tàmbali waaye amul fu mu yem parce que li ñu si def mënuñu koo lim waaye tamit dinañ ñu boole koo xam si ni tamit dinañ ñu wax liñ ci def lan la tamit dinañ tamit jël yaay li jigéen ñi ñoom itamit ñu wax ci bis bi soxna si maa ngi lay nuyu taalibe Serigne Fallou bi. waaw maa ngi a wér. naka yi sant safar gi. mbégteeg safar gi lan la. safar gi daal mu ngi nii rek liñ naan bu safar gi jubee murid yëpp ay rakkaaju ñii dañuy yëngu ñii di mbëkki miir waaye kenn du si gaañ waaw ñu ngi nii chaque année nag nii barke sëñ Fallou amul tànk ginnaaw kanam la jëm waaw ñoo ngi nii sama gaay yaa ngi nii xëy nañ ndékki yu baax ñoo déet na waaye ñu teg suñuy añ di ñaan rek waaw yàlla yóbbu ñu si jàmm indiwaat ñu si jàmm. di leen ciy yëng bëgg. waaw bu baax kay di sant gaay rek ñu am pas-pas lañ. waaw ah, bu jotee kenn du toog nelaw ñu dañ si finaan ñoom ñëpp xale yu góor yi di dóor waar yàlla na leen Serigne Touba fay barke Sëñ Fall. mën nañoo xam tey ñaata mbane ngeen teg. waaw tey teg nañ kaat te dañuy teg ay reer pareeguñu waaw. maa lay ziar bu baax. sant bu tedd gi. yow yaa géré wàllum soble bi. waaw gis nga de wàllum soble bi moom moom maa ko géré. waaw ak gis nga li yëpp si liggéey gi rek wàccaay màggal gi quoi xam rek nag eh, taal bi Sëñ Touba. xam nga rek ti lépp moom Ahmadou la quoi ñun moom la ñu topp topp ñu dana lu sëñ Touba ak sëñ Touba loolu la ñu wax de waaw xam nga rek euh, wàññi moom moo ko ak safar moom euh, lu ñu naan góor jàpp ci góor moom mooy loolu rek parce que ku su nekk daal xam a sa loxo daal mu ngi xam nga waaw mooy loolu daal. jërëjëf. waaw ñu ngi jaajëfal bu baax ku baax. dagg soble bi métti na wala métti. non benn sens xaw naa tar nag moom parce que léeg-léeg xam nga paak bi laa loolu ndaw mais dañ koy mujj ko quoi waaw lépp rek xam nga rek wàllum sëñ bi la quoi barke sëñ Touba waaw parce que loo si def rek xam nga yokkute la quoi ab taw féex la waaw. jërëjëf waaw ñaan yaa joxe fekk sax jërëjëf jaa jëf. nañu dem xool ki nga xam si ni moom moo nekk ci euh, wàllum euh, yu sedd yi parce que boo xoolee lii Cheikh boo xoolee lii Cheikh lépp ay ay bend la waaye tamit lépp ay teraanga yoo loo xam si ni waa café gi ñoo ko fi def fii ci euh, noor Foire wax dëgg yàlla di ay jàmbaar yoo xam ne sëriñ bi donga leen ñor. bi naka la Elimane Diop yaa géré lépp loo xam ni wàllum lu sedd la waaye yaa lépp loo xam ci ni euh, euh, euh, bu ñu añee ba pare war nañ ko mën a def ci biir yi pour déserter ko. Mm-hmm. bisimilah alhamdulilah alhamdulilah ala kulli haal ñu ngi sant yàlla bu baax di ko santaat moom mi ko yellool di ko tuubal te fas yéene koo jaamu jaamu bu génn liggéey suñ tubaab ba àjjana barkeb Cheikh Mansour Diouf mu sëriñ Fallou mu sëriñ Souhaïbou ñu lay siyaar jëwriñ di siyaar waa Leeral TV yëpp waaw comme ni nga ko waxee dañ fi nekkal suñu jëwriñ àndax ñoom si liggéey bi jëm si bernde waaw ñu ne si waaw ñu féetewoo naan gi muy naan yu sedd yi boisson yeex jus yëpp am teen samay jëwriñ laa koy àndal ñu koy def muy ñoom jëwriñ kéefi ma si gis ma nekk seen wax waxkat rek mais ñoom ñooy jëf lépp waaw da di dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa rek waaw ñun ñu fa féetu ñu pàcc bi loolu daal lañ féetewoo daal muy ku ñëw mar naan xiif lekk incha allah mais eh, seddal nga ko moom sedd boisson yëpp sedd na day sedd guy tàmbali na sedd bi sa fajar day gën a sedd rek incha allah dañ ne boo bëggee gaz boo bëggee jus naturel léppay am incha allah maa ngi lay nuyu sëñ maa ngi lay tur nag la Ibrahima la. Ibrahima yaa yor wàllum këll gi. waaw maa yor wàllum wàllum majaal bi. waaw majaal lu Cheikh Ibrahima gi mu daan defal sëñ Bamba tey maa ko yor taxawaaye taxawaay boobu noonu. waaw di di soññ ci gars yi rek ñu gën a passeefu parce que mbiru sëñ Bamba la amul tànk ginnaaw te biñ ko dalee def ba léegi bii mooy suñ troisième édition te chaque année rek année bu ñëw rek dàkk bi jàll. waaw kon loolu ab cant la parce que mbir mi mbiru sëñ Bàmba la te ñu ngi taxaw ko fii ci APEX fii di ko di ko santale borom bi ci li mu di jut safar ne santale leen ma yàlla ñu waaj dem ca màggal ga kon lépp loo ciy def rek daa war a rafet te yaakaar naa ne fii liñ ci jot a gis lépp taaru na waaw di sant ñëpp nag di jégaluwaale jë dëkkandoo yeeg ñëpp gis nga mbooloo mooy doole te ñun ñëpp a boole suñu maanaam suñu fukki dërëm ak suñu ñaar dërëm apex bi ñëpp génn xam nga ñu jëmmal jëmm ji fii di dund sëñ Bamba fii xam nga lii yombut yombul kon gars yi buñ ci nekkee rek ñu bëri dañuy ñëw daaw toll ñu woon nii mais ren dafa. gën a ren dafa gën a yokk. dafa gën a yokk mooy mbiru sëñ bi la sëñ sëñ bi ay mbiram moom yow da soobu rek moom mooy yeggali mooy yeggali daaw tollu ñu woon ni mais ren gën nañu mën a kii waaw déwén nag ñuy ñaan yàlla. ah ci barki safar gi gaa yi góor yàlla yu bëri dem génn génn réew mi dem réew mi nga xam ne boobaa dootul am ay cotisé kenn ku nekk moo yëkkati rek sasoo lenn waaw. yàlla baax na waaw yàlla yàlla xeeb dool yi. jërëjëf waaw tawfeex leeral point net nag yal na ko yàlla teg ci télé ci kaw maa ngi koy ñaan si bari darajee safar gi waaw ñoom ñooy télé société bi quoi. waaw ah, ñoom fi ñëw. Uh-huh. joxu leen dara. joxu leen déplacement joxu leen dara ñu jël engagement ñëw fi donc mënuñu lu leen remercier uh-huh. leeral TV donc merci beaucoup. di ñaan ci doole safar gi daal leeral TV yal na dem ca kaw. jërëjëf waaw jërëjëf Cheikh noo ñu ko waxee ni noonu la demee eh, du ñàkk tamit ñu dugg ci biir kafe gi ku ne wax Serigne Bamba ne kafe waaye ku wax ne Murit ku wax Murit ne kafe parce que Murit yi moom bu weer wi tollee fii Murit dañuy bëgg kafe sëñ maa ngi lay nuyu. da lay delloo. ci loo san sant Sëñ Tuubaa baax. gi fii. waaw mu ngi baax. waaw ñooy sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. alhamdulilah naka xéwali nag waaw alhamdulilah. mën nga mën nga ñoo wax tey kafe gi tey eh, ñaa ñaa ñaa ñaata saaku nga jënd wala ñaata mbuus wala ñaata ñaata siwo nga café nga seeg. waaw kafe gi tey ñaari saaku leen jënd waaw man xëy ak léegi cinq nan cinq siwo waaw te dañoo fas yéenee seeg ñaari saaku yëpp te kàttanu sëriñ bi jox ko mbokki taalibe yi daal mbokki jullee mbokki taalibe yëpp waaw da ci am kontaan ak mbégte bu baax nag waaw ci safar gi. ku fi ñëw yaa ngi yaa ku fi ñëw yaa ngi naan kafe te et tamit sa dërëm du si dem. waa si mbégte mi la ndax si mi la dañ koy joxe c'est gratuit sakkunti dara lu ngërëmal sëriñ bi te ñaan bu boole ñu ko ñun ñëpp nag. Mhm. yaa ngi ci gis yokkute. waaw ñoo sant bu baax a baax mbirum sëñ amul tànki ginnaaw tànki kanam rek mu sëñ moom noo ci sooboo rek noon nga si mel. jërëjëf. Baye Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar. si loone. maa ngi nii la. Mouhamed Al Amin Diop. mbégte mi tey lan la ah kontaan ci maam Bamba rek moom rek la ñuy topp bu nekkul moom du doon keneen rek moom su mooy suñu ëllëg mooy suñu tey yowmal xiyaama moom lañ gëm moom lañ gëm fii bu doonul moom du doon keneen. lan la la Serigne Bamba defal loo xam ne tey mën nga ma ko wax. ah mën naa defal na ma lépp ndax sam maam ci moom la liggéeyal Kayaar gële ku ko xamul dégg nga ku ñuy wax Serigne Malick Diop mi ngi ci net bi boo waxee boo xoolee moom rek nga fay fekk ay jàngale yu garaaw moo ñun moom rek la ñuy topp génnaaw barki dem laa jógee Kayar safar gu neex laa fa fekk ñaanal sama maam suñ Malick jóg suñ Fallou moo ko yónni Kayar pour mu liggéey ñun kon ñun suñu maam la ñuy topp duñ topp kenn te suñ maam Serigne Touba la bëgg te ñun tamit moom rek la ñuy topp nee naa la bu doonul Serigne Touba du doon kenn. jërëjëf jërëjëf ñu bokk ñun ñëpp. jërëjëf gis nga Cheikh euh, bu doonul Serigne Touba du doon keneen parce que Serigne Bamba kaa leen santale ma yàlla la wax. kaale ñu liggéeyal yàlla sunu borom moo tax mu woote safar 18 safar waaye 18 safar bu jotee gis nga mbokki taalibe yi kenn ku ci nekk danga nga ciy xal sa tànk tubay kenn ku ci nekk da ngay boole say déem ak say daqaar indi si bisu ba Bamba Serigne ba nag bu wootee kenn dootul woote. Cheikh let's go. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina waa mawlaana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaana ah, Moustapha Diop yaakaar naa ne boobu ba léegi yaa ngi ci waañ bi si eh, saf eh, Moustapha Fall ba léegi yaa yaakaar naa ne ñoo ngi ci waañ bi Fall ak benn la ah ah waaw waaw Fall ak benn la Fall ak Diop te comme moom man eh, Moustapha Diop ci moom laay xëy ci laay gont mm. ci ay waayam laay mbir fii ma nekk ci yoof nii ba participer ci safar gi waa safar gi xam ko bi mobilisation bi ñu fi defoon ci 4 avril gi ñoom ñëpp kuréel gi dañoo jóg fekki ko keroog dem jàppale ko ci 4 avril bi ci kanam war fee yónnee délégation fii ci safar gi man nag ma représenté ko fi jëlee ma Louga nekk fii di ko liggéeyal ci ay mbiram laay dox suba ak bëccëg ak ngoon loo xam ne rek tey jii def nañ ko fii ci safar gi rek loxoo ma ngi fi dégg nga ko kàddum jógu ci yéene ma ngi ci bu sañoon tey jii apex gi dañuy génn te waa ci jàmbaar lan bëgg nañ Moustapha ay ndaw yi fi ne ñu ngi koy jàppale te ñu ngi topp ci ginnaawam te bu nee wow na ñu ni kong bu dee tooy na ñu ni xëpp. jërëjëf ñu ngi nuyu Moustapha Diop di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm am na lu mu bëgg ci réew mi te ndaw la waaye euh, safar gi. Mhm. safar gi ñu ngi toll ci jeexantalu safar gi. waaw tey mbégte mi lan la. waaw mbégte mi xanaa sant yàlla rek ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunuy ñaari wan di sant Serigne Touba Khadim Rasoul nga xam ni lii lépp la mbégte mi nag dafa yaatu te dafa am lu ma sentir tey dama sentir ni sama waa ji gis nga sa màggal gi dana mujj bu ñu demee ba ci ay jamono ku ne fa nga dëkk nga koy màggale ndax lan ndax ndax ndax mbiri Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am mbiri Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ndax lii ñu def tey jii boo demee ci quatorze régions yëpp yi ci Sénégal foo dem ñu ngi fay màggal safar gi di fa màggal safar gi ngir Serigne Touba ñu jàppale ko ci bisa bii jëmmale ko ci bisam bii mais Serigne Touba bu ko waay lebalee juróom rek mu fay la ñaar fukk bég nañu mbégte mi nag di sant di gërëm di sant Serigne Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér di sant tous les xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen tarixa yi fii ci Sénégal bu Touba wootee amul Mouride amul tiijaan amul Xaadir amul Laayeen ñëpp ilaa Touba. te safar gii nga gis tey ñu toog Mouride yaa ngi fi Tidiane yaa ngi fi Laayeen yee ngi fi Baye Fall ñëpp ñu ngi taxaw ngir jëmmal bisu Serigne Touba bi kon bisum birum Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am yàlla nañu barkeb Serigne Touba ak ñaanuk sëriñ Touba ak xéewaluk Serigne Touba wàcc ci ñun ak mboolem jullit bi nga xam ne yaa ngi organiser safar yéen waa tere leeral bi yàlla nay télép Serigne Touba ni Serigne Touba téye tarixa bi jëmmal ko ba mu yegg ca ca kaw jumaay Touba na mu dëgëre ak fondement yaa kenoom ya yàlla na ko télé leeral bii mel télé leeral nag am naa ci moom yaakaar ndax dañuy xeeb waaye ca kanam rek la jëm moom mook yoonu murit yam amul tànk ginaaw tànk kenam rek la am. jërëjëf jërëjëf Moustapha. Serigne saali Diop ngay magu xale yi maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay bu baax cheikh bi yéen waa Leral TV lay nuyu baax di la fay gannaaw bi nga xamee ni maa ngi tudd yàlla ci turamu tedd boobu nga xam ne mooy mooy yërmande gi mooy bisimilah rahmaani rahim di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul di ñaanal Cheikh mun Mountakha yàgg fi te wér lool di santaat Serigne saaliw nag bu wér waaw di ñaan yàlla dool li leeram jërëjëf. nongol sëriñ Saliou la. waaw nongol Serigne Saliou ah, la laa sax. man maay maskatu Serigne Saliou. mooy lan maskatu mooy man maay gadje Serigne Saliou. waaw ma boo nee gadje mooy tey ji bu ñu ñëwoon lii Tour Eiffel la ñëpp di ko xool ñu defar ju ndaw teg ko noonu da nga xam lii Tour Eiffel la wante da nga si xel da siy dem rek wante taxul ñu doon Serigne Saliou ndax moom kenn la. jërëjëf. tey safar gi def ngeen ay bernde def ngeen yu sedd def ngeen lépp loo xam ne xéewal la rek li Serigne Bamba sante woon santaane woon yaakaar naa ne matal ngeen ko tey. alhamdulilah kaddu gi mujj gi lan la. waaw dañ doon annoncé sujet bi rek ndax sujet bi mooy le 18 mooy 18 mooy 18e jour safar muy bis bu tedd bi di bis bu am solo di bis boo xam ne maanaam dafay Sëñ Tuubaa daf ñuy da ciy fàttali nit ñi màggaayu sunu borom ni dayoo sunu borom ak màggaayu sunu borom. di si woote nag ab cant kon nag léegi bu ñu demee ba nga xam ne parce que li mi ngi xewee si Serigne Saliou ndax léegi boo seet ni ñaa ngi def safar safar gi nag c'est juste annoncer le sujet mais le sujet c'est le principal c'est le Magal le grand Magal de Touba muy am le 4 septembre bi 2023 kon woote gi mooy lan waajal màggal gi mooy sellal ko waaw sellal màggal gi ndax borom yëf yi léppam dafa sell waajal màggal dafa fekk ni booy dem màggal da ngay waajal yu sa yëre yu sell waajal sa bopp xam fa nga jëm xam na nga fay nekke boo fa demee tamit dafa am ñaari xeetu bernde yu fa am mooy bernde ruu gi mooy di jàng alxuraan di def say istifaar di tudd yàlla di gërëm yàlla di sant Serigne Touba gannaaw loolu bu mu amee la nga xam nag mooy wàllu waañ bi bu dee bernde rek Touba la fekk baax waaw ci jamonoy Serigne Saliou boo xoolee lépp luy xeetu ndawal ak xeetu xéewal feeñ si Serigne bi ah ñëw di màggal di màggal seen bopp sax ñoom laay wax noonu kon loolu bu mu jaaxal kenn waaye di ku fa dem nekk fa ba nga xam ne boo fa jël di nga sant benn spiritualité boo dund yëg ne maanaam bi nga ñëw si màggal gi war ngaa jàpp ne bu doon ngërëm la am nga ngërëmal Serigne Touba waaw. jërëjëf euh, Saliou euh, gannaaw bi ñu la gërëmee kaddu yi leer na kaddu yi rafet na. ñu leen gërëm bu baax a baax. loo leen mën ren rek bu dewee ne yàlla ngeen ko lu ko amiin yaa rabbi amiin ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax euh, Saliou Sylla sa xarit borom C50. am na lu mu def ci bërëbu sëriñ euh, am na am na lu DG Abdoulaye Sylla def ci bërëbu Serigne Fallou bi. fii ci màggal gi def ci deux deux milliards. muy liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal yoonu murit waaye liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal Serigne Bamba waaye liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal waa kër Serigne Fallou. ndax li mu def ci bërëbu Serigne Fallou. foog ñu wax ko ndax lu baax ku ko def ci yoonu murit dañ koy wax. rafet na loolu loolu loolu dañ koy ñaanal yàlla yàlla yokk mën-mënam ñun nag ñëpp la ko defal nag ba mu koy def sagu murid yëpp la sagu julli la sagu doomu aadama yëpp la kon loolu mu mën ren ba di ko def yàlla na koy yàgg di mën bi jaay rasulullah mbégte la si ñun waaw mbég nañ si lool si loolu yàlla na yàlla yokk fanam guddal ay fa wéral ay cëram bu baax jërëjëf waaw ñoo ngi koy ziar bu baax tamit jërëjëf jërëjëf ñu jàppoon ci liggéey bi ah. ah Assane Sylla Assane Sylla jërëjëf yow jàpp nga ci liggéey bi laay bu deef encore une fois ma lay ñaanal suñu borom defal la jàmm li ngay daj ci man li ngay liggéey ci man ak li ngay li nga may conseillé lépp gis naa ko maa ngi lay ñaanal sunu borom defal la jàmm di ko ñaanal tamit sunu yaay jooju toog ca kër ga suma yaay satu maa ngi lay nuyu ah yaay yaa maa ngi lay nuyu di la ñaanal sunu borom defal la jàmm di ñaanal képp koo xam ni yaa ngi bëggee leeral TV leeral point net ñun lii dong ñuy teel dugg ci dëkk bi dugg ci banlieue bi fu ndaw nekk ak fu mag nekk ñu dékk la sunu micro. nga wax ci réew mi waaye tamit wax ci dëkk bi waaye wax tamit li nga xam si ni moom mooy mooy bisu Serigne Bamba bi nga xam ci ni dana kaa leen sant ma leen ma yàlla ñu ngi ciy gërëm ñëpp ñu ngi ciy gërëm ñëpp liggéey bi Birahim Touré ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax Mansour Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Thialla madame Touré l'équipe bi équipe bu leeral TV ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu leen baax rek ñu ñu ñaanal ñu ñu dem ci Touba ci jàmm ñëw ci jàmm correspondeur yi nekk Touba ak fu waay nekk rek gërëm nañ leen ànd bi ngeen ànd ak leeral TV leeral point net mbégte la te du jeex de daam jee bu ragal dara loo ragal da lay gaañ jërë ngeen jëf seex bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman safaru bamsasin junnatun bismillahi الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما سفر بمسز جنة